may wara way ay dem Cees ñu leen ñu dem Cees dëkk ba dem Cees dëkk ba ah ma def ci nag léegi taal leen yi waaw taal yi fokk mu tàkk Ablaye Ndiaye ma taal ko ak eh, dafa am lu nekk ci taal bi waaw ndax dañu ni taal dama ne taal leen yi ci 1966 ndeysaan muy festival mondial des arts nègres oh. yàlla def ñuy def cinquantenaire bi di ko préparé Talla Sylla député maire bu Thiès tudd Talla Sylla mooy taal leen mooy day taal day taal day taal waaw taal leen lamp yee ndeysaan gunay ndeer ak ndakaarooy taal leen lamp yee ndeysaan maire dëkk Thiès ki fi toogal ki fi ndaw université Thiès ak borom xam-xam yi teew si jataay tey bi ñoo leen di nuyu den leen njukkal ak di leen jaajëf jamono ji dafa metti soxla yi bari na wante xam li aada jëriñ ak li nga xam ni moom la 1966 jur mi festival ba moo tax waa Thiès lëkkaloo bu ma nee waa Thiès dañuy université de Thiès mairie Thiès manufacture de Thiès ak centre culturel ak képp ki xam ni caada saxal na la ñoo lëkkaloo jéem def pexe ba ñu ñëwee Thiès màggal fukk euh, juróom fukki nga xam ne mooy yu festival mondial des arts du ni nag bu noonu tànn dëkk yu bi ndax Dakar du Sénégal dam nu Ndar ñoo ngi Thiès Thiès. li tax ñu ñëw fii benn mooy ki nga xam ne mooy Senghor def li nga xam ne lu am maanaa la ci festival boobu mu ngi cosaanoo Joal rax si doole nag moo doon maire de Thiès ñaareel bi mooy fekkee ñoo ngi euh, gëstuwaat lii taxawaay ñitu waa jamono yooyu munoo ñàkk lim Khady Diouf ak Abdoulaye Ndiaye cosaan ndax ku nekk daa dëgg yi araf taaleen lamp yi wala boog Sénégal moo woote festival mondial des arts nègres ñetteel ba nag am na xam dafa mandargaal Thiès mooy li nga xam ni sunu am di jàmm sunu naataang sunu xarit Aliou Diouf moo ko jiitee muy manufacture di tabax bu kéemaan ndax nu ko Sénégal xalaatee woon ngir mën a meññal lépp na xaral la def naa ba tey boo xoolee ba xool daa gis ni et loolu am na fi njëriñ kon yu mel nii duñ koy màggal ndaxte lu tax ñu gën a saw ci ñoo mooy da ngeen wax ci seen programme kaay Thiès démb waral tey mën ci nasaraan boo ko doon tekki da nga naan àdduna bi lu mu màggat màggat cosaanam démb la kon doomu aadama bi bu ko yàlla mayee xel faaw mu lëkkalee ëllëg tey ak démb xam démb nag mooy tax sa taxawaay tey am maanaa mooy tax nag nga mën a sóoraale ëllëg ndax wolof njaay nee na ëllëg du njël waat moo naa sóoraale booy soireel nag ñu may xool mooy séeréer ak njaayeen nii li ngay xool mooy lekk ak naan li ngay sóoraale moo li xel nangu muy suñu jëmu ëllëg joxandoo loxo ànd ak monsieur le maire Talla Sylla ànd ak képp ku bëgg réew mi ñu mànkoo bokk ndeeg baay tabax réew mi loolu moo tax bu ñu taxawee fii seen seentu la woon démb gën a meññ tey ñu joxante loxo ngir ëllëg mën a meññ ndaxte yaakaar bu nu am yàlla naka yàlla mottali yàlla may nu kattan li nga xam ne moom nu yéene suñu réew seen maire yéene ko réew mi mu dox lu mu gënee ci askan bi ci waa Sénégal ak ci dunaa yëpp sama gërëm ak sant-sant jërë ngeen jëf président wu Kaksen ak mbooloo mi mu àndal yëpp nga xam ne lenn yëkkatiwu leen lu dul suqali li nga xam ne mooy caada bu bépp nit boo xamante ni suñu nitu euh, dëkk la suñu nitu der la suñu nitu continent la nuyu ñi mu àndal ñëpp nuyu ki nga xam ne moo fi toogal tey ji université wu Thiès tey suñu xarit di nuyu euh, DG bi nga xamante ni moo yore manufacture vraiment sénégalaise des arts décoratifs de Thiès di suñu xarit Aloïse Diouf di nuyu ki nga xamante ni mooy madame le maire may mun a Dieng di nuyu ñi nga xam ne ñooy élu ñi ñu fal ñu bokk ci conseil bi di nuyu ah secrétaire général u ville bi ak ñëpp ñu bokk ci personnel administratif et technique bi muy directeur di chef de service di personnel bi di nuyu ah élu yi fi ñëw yëpp di nuyu mbokki Cees yi nga xam ne ñoo ñëw teewe mbir mi ak mbokk Sénégal yi nga xam ne ñoo ñëw wàll si ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam ah di sant nag ñu ñii ci suñu wàllu bopp at mii nga xam ne lii ñuy màggal tey ca la amoon at moomu ca la ñu judd muy 66. yàlla dogalit keroog ba ñuy fal fii conseil yi fi daje woon maanaam nombre bi ñu faloon 66 la woon kon ñu def ko sant yàlla xam ne lii ci li ñu war la woon ñépp xam nañu taxawaayu Senghor. mi nga xam ne moo njëkk a nekk maire fii ci dëkk bii ñuy wax cees ñëpp xamoon nañu digganteem ak li ñuy tuddee caada ni mu ko fonke woon ak ni mu xame woon solo ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ne caada ju réer gàcce gu rëy la ndax jamono boobu dañu daan wax ne ña nga riire tugal jaar Amerika doog a tàbbi ñu ni Lat Joor xeex na ak sàmmoor yi ba ñu boom leen ca xanaa xamoon ni caada ju réer gàcce gu rëy kon moom mi nga xam ne moo njëkk a nekk maire fii njëkk fi nekk président ginnaaw bi fi tubaab yi jóge moom xamoon na soloy caada ba mu sababoon la fi amoon ci atum 1966 boobu mooy jéem a dundal caada jooju nga xam ne ñun ñu nekk fii ci Sénégal ñun ñu nekk fii ci Afrique ak suñu doom yi nga xamante ni dañu fee bàyyikoo seen i maam bàyyikoo fi ñu juddoo feneen te xam ne fii la bokk seen caada bi leen boole ñu jéem a seet naka lañ koy dundale dundal caada boobu nag du weddi caadawu keneen dundal caada boobu wane sa bopp la wane sa dignité la wane sa nité la wane ne doomu aadama nga bu yàlla sàkk ñëpp war laa respecté loolu nag suñu demee muy dox ba daje ak ren jii mu am juróom fukki at dafa jaaduñu màggal ko kon suñu jërëjëf mu ngi jëm ci waa Kakseen jëm ci waa manufacture jëm ci ministère bi nga xamante ni tey ji moo yore wàllu caada ci réew mi ak jokkalante ñu leen di gërëm ñoom ñëpp ak bépp homme culture ak waa université yi nga xamante ne dugal nañ seen loxo ci vraiment fàttali génération yi nga xamante ne ñoo fi nekk tey war a mën a dundal loolu te fekke ko woon ndax lii ñuy def tey ji am na ñoo xam ne fi la ñuy jógee amee ci xam-xam bu wér boo xam ne dana leen mën a may vraiment ñu jàpp ci dara ngir mën a jëm ca kanam ah mu jaadu nag ñu gërëm tey jii kii nga xamante ni mooy Abdoulaye njaay cosaan ndax taxawaayam dafa amoon solo damay fàttali souvent réew mu dul sa sargal ay magam ay ndawam duñu sawar ndax moom ba mu ca tolloo dafa jël kàttanam xam-xamam xereñam dugal ko ci loolu daj ci lu nekk mag nit nag day mag nit day dem ba nekk mag nit day dem ba tële kon dafa jaadu ña mu daan defal loolu ak di leen représenté ak di yóbbu seen tur fu nu àggul ñoom ci seen bopp dafay jaadu ñu di ko won ne ko ah sagaloon nga ñu démb ñu ngi lay sargal tey sargal boobu jaadu na ci moom jaadu na ci Khady Diouf jaadu na ci Pape Ibra Tall na ci képp koo xamante ni jaaroon na fi vraiment wone loo xamante ni euh, ñëpp rafetlu nañ ko kon ci turam ak turu Khady Diouf ma tudd ak tur ñëpp ñi nga xam ne ay artistes lañu ñu dëkk Thiès wala nekk Sénégal tey fësal culture boobu nga xam ni moom lañ doon jàllale ci eh, ci ci ci mani ci kii bi ci euh, événement bi euh, festival boobu ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér di wax ne nanu téye ci caada bi nañu téye ci kiñ doon nañ téye ci ñi ñu doon ndax nit da ngay taxaw ba mu fu dëgër ngir nga mën a avancer boo taxawul fu dëgër da ngay pëtëx te boo pëtëxee doo avancer te jaadu na ñu xam ne subaay dàq suba nag pour mu dàq dafay fekk nga xamoon li xewoon démb te démb boobu moo la waajaloon tey te moo lay may nga am kàttanu waajal suba bis bu ne ma wax nit ñi ne leen ñun suuf si ñu dëkke tey moomuñu ko te doon na wuñ ko suñu maam dañ ko leb suñuy sët comme dañ ko leb suñuy sët nag dañ leen ko war a delloo ci anam yi gën a rafet ci anam yi gën a sell te bokk na ci anam yi nga koy delloowee mooy anam biy jaare ci caada ndax caada day buum gi nga xam ne moom moo gën a jege ñaari doomu aadama yoo xam ne bokkuñu jamono wala bokkuñu dëkk bu ñu nekk tey jii da ngay dégg benn hymne boo xam dañ koy tëgg tey te fekk ña ngi ko bindoon fekk lu ëpp téeméeri at amoon na na mu daan yëngale ñooña lay yëngale ay nit tey nga gis tey jii benn woy boo xam ne dañ koy yëkkati mu yëngal ay nit ñoo xam ne fekke wuñu woon jamono ba mu doon am nga wala ci réew moo xamante ne woy ba cosaanoowu fa loolu yëpp dafa doon loo xam ne dafa am solo ñun daal ñu ngi leen di wax ne bég nañu ci seen teewaay bég nañ ci li xew yépp tey yàlla na yàlla may kàttan ñi nga xam ne ñoo xalaat mbir mi ñoo ko doxal ba mu yegg si fi juwaana saar ngaarit na ino yokku men a saar mooy at na jàkke mag waala yan boobu xadi jëfa ko jërëjëf waay jërëjëf boo darroogante saw xeet gis ko àdduna njortu naa ne dafa yaatu kon yow fegul yaatu pegul fegul nekk làmmiñal askan def lépp làmmiñu cosaan ndax adduna nit nit rek lay doon fonkal saw xeeti réew naw sa cosaan ndax moom adduna daa yaatu pegu penku bëj gànnaar siin ak sow làmmiñu réew bindal gëstu yaatu hey jooy naa jàmbaar ja baay gànna kebe wéetal nanu hey Ablaay Njaay cosaan jàmbaar ja jëlal maay bi yaa ko moom loo wax rafet na Aloyse Nam Diouf den nag Talla Sylla Mokhtar Talla Sylla diwaan Talla li la réew mi jariñ taxul nga fàtte njariñu réew mi réew mi jàngal na la réew mi yar na la fay nga bor jariñ sa réew Kalidou Sylla doomi Cees de Kalidou Kalidou Kalidou na pince topp na peinture Kalidou loo rëdd rafet na jox ma sa tableau la koy jaayal jàmbaar ci Kalidou doomi Thiès valeur Ablaye Ndiaye cosaan xanaa kontaan nga tey sargal lan la ci daaru dunia bay Ablaye Ndiaye cosaan madame la maire bàyyi woo monsieur le maire wéet Talla Sylla si j'étais un sculpteur je mettrais en place les bras ouverts dans un élan d'étreinte, deux sur une marche supérieure, l'Europe et les États-Unis sont plus rapprochés, le troisième l'Afrique, un peu éloigné, aux formes saisissantes de cruauté et de force tend aussi les mains. La question n'est pas de savoir si le traité aura lieu, mais quand et comment nous pouvons y aider et substituer à des rapports conflictuels de quatre siècles d'incompréhension bâtis au départ sur le commerce triangulaire taala silla patriote la ndeysaan buumu njam ga dog na tey Kalidou kasa jambaar ji Kalidou doomi Cees jaangi Kalidou kontaan naa Kalidou yaa ngi dundal xaralaat caada damoo na la Kalidou boo jàppatee mbër ba muy jooy bàyyi ko kase boo jàpp Abdou Diouf ja hee taalibeeg dafay doxal hee taalibeeg métier am na solo un taalibe un métier a war ak saa kontaan na Thiès monsieur le maire Ahmed kontaan nañu bu wér